يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بزخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نيغ نين دي نوي بو باخ كين كو نيك سي تورام اك دي <clears throat> خمنا دا نيي ان شاء الله في نيو يمون سي كور بي نيو ويسو جو في بارتاجي ليكران ان شاء الله تعالى voilà bu fekkee yéen a ngi gis écran bi ngeen bind ma ci chat bi incha allah. waaw sëñ bi ñu ngi koy gis ñu ngi koy gis. ok alors ci cours bi wees woon ñu ngi yemoon ci <clears throat> riwaayatu saxaabati ani taabiin wa riwaayatu taabiin ani saxaaba yaakaar naa buntu bi ñuy jàng moom mooy riwaayatul akaabir anil asaaxir euh, riwaaya mm, ku mag ci ku ndaw wala ku féetee mag. ci kum féetee ndaw waxoon nañ itam ne c'était pas forcé que nit ki magante bi nekk ci ay at kese léeg-léeg mën naa nekk ci euh, daraja par exemple bu fekkee ab saxaabi yi dafa Seydi Muhammad al-Humaydi euh, muna ziyaara yaa gida kayfa xaalukum wa kayfa xaalu Mawlana Sharif alors bu fekkee nit ki dafa riwaaya ci koo xamante ne nii moom moo ko gën a kawe daraja par exemple ab saxaabi riwaaya ci ab taabii euh, boobaa dafay nekk riwaayatu al akabir wala ab taabii riwaaya ci ab atbaawu taabii boobaay tamit dafay nekk ci riwaayatul akabir anil asagir comme par exemple tey ji ku mel ni euh, abdullahi ibnu abbas radiallahu anhu wala ñoom abdullahi ibnu omar wala abdullahi ibnu zubair bu ñu riwaayaa ci benn taabi'i boo xamante ne nii par exemple moo leen mag ci ay at malgré que moo leen mag ci ay at mais bu boobaa riwaaya bi dafay nekk riwaayatul akabir anil asaxir parce que suutante génération la foofa du doon sutante ci âge wala ci kii alors <coughs> donc ci loolu euh, jàngoon nañ ci joxewoon nañ ci exemple ci abdullah ibn abbas ak abadi abadila yi nga xamante ne limoon nañ leen ak ku mel ni abu hurayrata radiallahu anhu ñuy jëlee ci ku mel ni kaabul axbaar naka noonu tamit ci riwaayatu attaabiina an atbaai taabiin waxoon nañ ci riwaaya ku mel muhammad ibnu muslim ibnu shihabin al zuhuri mu jëlee ci ku mel imam malik nga xam ne du taabii mais atbaawu taabii la alors naka noonu tamit joxewoon woon nañ exemple ci riwaaya ab saxaabi ci moroom saxaabaam comme euh, riwaaya Seydina Omar ibnul Xataab xadisu Saïb ibnu Yazid boobu alors tey dañuy jàng beneen xaaj ci xaaj boobu ñu ngi koy tuddee euh, riwaayatul abnaai anil aba maanaam riwaaya baay yi walla doom yi jëlee ci seeni baay kon léegi euh, dafay nekk ci beneen ordre bu bokkut ak ordre bi mu nekkoon au début bi ci njëkk mooy riwaayatu rajuli an riwaayatu rajuli an abihi fa xasb par exemple nit ki jëlee ci waajuram bu góor kese maanaam baayam te loolu lu bari la wa dalika kasirun ka riwaayati abi ma abi shuara ad daarimi an abihi par exemple am na ku ñuy wax abu shuara ad daarimi mu jëlee ci baayam wala par exemple ku mel ni euh, doomi sayidna ali muhammad euh, ibnul xanafiya mu jëlee ci sayidna ali mu jëlee ci yonentu bi boobaa tamit dina nekk riwaayatul ibni an abihi fa xasb euh, par exemple doomi sayidna omar boo xamante ne gisul yonentu bi ku mel ni aasim mu jëlee ci sayidna omar mu jëlee ci yonentu bi ak yeneen yu mel noonu yu baree bari loolu mooy premier échelon bi mooy doom jëlee ci baayam directement alors am na deuxième échelon nag boo xamante ni mooy mu yokk ci an yazida an abihi fa takuna fa takuna riwaayatuhu an abihi an jaddihi mu jëlee ci baayam baay ji jëlee ci maamam wala moom mu jëlee ci baayam baay ji jëlee ci baayam moom donc mu nekk sët bu jëlee ci baay ak ci maam par exemple ku mel ne Amr ibn Shuayb riwaaya bu siiw la moom sanad bu siiw la ci téere xadis yi danga koy fekk ci mustadrak bu imaamul xaakim da nga koy fekk ci téere yu bëri xadisu Amr ibn Shuayb an abihi an jaddihi sanad bu siiw la léegi Shuayb mii mooy baayu Amr mii kon Amr dafa jëlee ci baayam Shuayb Shuayb bu jëlee ci baayam moom mooy maamu Amr loolu mooy deuxième échelon bi nga xamante ne loyer bi mën na ko am par exemple man ma jëlee ci sama waajur bu góor sama waajur bu góor jëlee ci waajuram bu góor kon man maa jëlee ci son baay mu jëlee ci son maam d'accord wala riwaaya ku mel ni Bahz ibnu Hakim an abihi an jaddihi moom tamit même échelon bi jëlee ci sa waajur bu góor sa waajur bu góor jëlee ci waajuram bu góor waaye waaye boobu euh, am na ñaari xaaj manam kate façon façon mutu bi amna ñaari xaj par exemple ma yaudu ad damiru fi qawlihi an jaddihi ala raawi alawali al ibni fa yakunu al jaddu wa fa yakunu al jaddu huwa aban lil abi wala abal abi ay par exemple doom ji bi mu waxee ne jëlee naa ci sama baay sama baay jëlee ci maamam donc damiru jaddihi bii bi xam nga arab yi dañuy wax ne ad damiru yaudu ila aqrabi zikrin damir dafay dellu ci ki ñu ki ñu mujj tudd wala ki gën a jege damir bi donc damiru jaddihi bi mu nekk ne dafay dellu ci maam ji ci ci sët bi moom par exemple man su ma ne wala yow soo ñëwee ne Cheikh Baye an abihi an jaddihi mu nekk ne jaddihi boobu damiru hii bi dafay dellu ci Cheikh Baye kon sama maam la man suma papaay papa loolu benn cas de la waaye tamit mën na am beneen deuxième cas de figure mooy maa yaudu damiru fii alal abi maanaam damir bi bañ a dellu ci doom ji mais mu dellu ci baay ji par exemple mu nekk au lieu de man sama maam directement mais sama maamu papa kon nga gis ne kon am na ku ñu sote ci diggante bi fa yakunu al jaddu huwa jaddul abi wala sa jaddul ibni maanaam mu nekk maamu Baye ji mais pas maamu doom ji nga xamante ne moom moo wax vous comprenez tey ji par exemple doomi Seydina Hussein muy Seydina Ali Zeynil Abidin bu waxee ne jëlee naa ci son baay mu jëlee ci son maam donc on comprend que dafa jëlee ci baayam Seydina Hussein kooku jëlee ci maamam muy Seydina Ali maanaam maamu Ali Zeynil Abidin mais par contre bu fekkee ci deuxième cas de figure bi la maam ji. mën na bañ a nekk Seydina Ali donc dafay nekk maamu seyd Hussein au lieu de baayu Seydina Hussein vous comprenez kon boobaa maam mataaru Seydina Ali Zeynal Abidin lay doon kon dafay nekk jële naa ci sama baay al imaamul Hussein radiallahu anhu mu jëlee ci maamam muy Seydina na Talib au lieu de Seydina Ali ibn Abi Talib que vous comprenez donc. damir bi ci cas de figure bu njëkk bi mën na dellu ci doom ji bu boba mam ji nek premier échelon ci deuxième cas de figure bi damir bi mën na dellu ci baay ji mu nek deuxième échelon et bu boba forcément kon amna na ku ñu tëb forcément kon amna na ku ñu tëb ci ci isnad bi donc fa yakunu jaddu huwa jaddul abi wa laysa jaddul ibni dafay nekk maamu baay ji mais pas maamu doom ji lu mel noonu nag fa iza waqaa fi fa iza waqaa fi isnaadi fulaanun an abihi an jaddihi bu fekkee nag ci isnaad fekk nga ci ñi ne la diw jëlee ci baayam jëlee ci maamam te xamoo damiru haa bi damir bi ci kan lay dellu ndax ci maamu fulaan bi lay dellu wala ci maamu abihi bi lay dellu walam walam yuskar ismul jadi te tudduñu turu mam ji tudduñu turu mam ji par exemple tay yusuma ne la euh, sayyidna ali zainal abidin mu jele ci bayam mu jele ci mamam sayyidna ali donc on comprend que kon jaddihi bobu non ak jaddihi euh, ali ibn abi talib jaddihi bobu kon mamu ali Zainal abidin la par contre bu fekke tudduñu mam ji an abihi an jaddihi kessa lañ wax yuhtaju ila maarifati damiri fi jaddihi boba dañuy soxla xam euh, damir bi hmm, damiru jaddihi bi ci kan lay delu ndax fay delu ci rawil awwal moy fulan bi wala fay delu ci rawi sani, moy abih bi bu da fay delu ci rawil awwal bi boba amuñu problème bu fekke xam nañu mamam nu mu tudd par exemple bu fekke ne ci chaîne e, exemple bima lañ jox ali zainal abidin an imam al hussein عن سيدنا علي bu fekkee ne dafay dellu ci raawil awal bi raawil awal bi fii mooy kan mooy ali zeynil abidin d' accord kon amuñu problème parce que xam nañ ne maamam mooy Seydina Ali par contre bu fekkee dafay dellu ci raawi saani bi muy Seydina Hussein mooy abihi bi fii boobaa dañuy soxla kon ñu tëb benn kate benn génération dañuy soxla kon ñu tëb benn génération bu boobaa fa yakunu al awalu قد روى عن أبيه ويكون الثاني قد روى عن جده لا عن أبيه بوبا كون دا فاي نيك ني كي نجيك كي موي فلان بي نجيك كي شين بي دا فا روايه موم كي بايام مي الثاني موي باي baay موم دا فا riwaayaa ci مامام مي با ci بايام موم كون دا فا ci maam مام ماتارو كي اولي دا مامام vous comprenez est-ce que alors bu ngeen paree bu fekkee leerul après mën nañ mën ngeen ci mën nañ ci indi précision mais daal

damir la boo xamante ne mën na dellu ci fulaan bu njëkk bi mën na dellu ci abihi bi bu fekkee ci fulaan bu njëkk bi la dellu te xam nañu maamam ni mu tudd amul problème bu fekkee ne ci abihi bi la dellu boobaa kon forcément sauté nañ benn génération et bu boobaa bi soit mën na nekk euh, lu am inqita soit mën na nekk lu am irsaal ainsi de suite et après da ngay lijeenti lan la mën na wér mën na bañ a bu boba c'est pas forcé que tudduñ eh, tudduñ ki bi rek automatiquement dafay wér di c'est pas forcé que tudduñ ki bi automatiquement fay wér mais il faut boba nga jaar ci mécanisme yi nga xamanteni ni jangon nañ ko ci lu wess won bu fekkee ne amna ku ñu tepp wala amna ñu ibham et bu boba item il faut nga dellu ci li ñu jangon semaine passée ci xam kan mo riwaayee ci kan wala semaine bala ci kaw ci xam kan mo riwaayee ci kan ak kan mo ci kan

mooy Seydina Abou Talib au lieu de Seydina Ali boobaa yaa problème parce que ce qui est sûr et certain mooy ne Seydina Hussein déggeewul ci Seydina Abou taalib dara jëleewul ci moom fekkante wuñ ci jamono donc yaa laa yaa problème il faut boobaa dañuy lijjanti ci kan la ko déggee ndax ci baayam la ko déggee directement walla loolu beneen beneen beneen beneen jàng la. alors bu loolu paree. mu am benen buntu bu ñu tudde tuddé as-sabiq wal lahiq yëpp ci benn chapitre bi la riwayatu sahabati ani tabi'in wala riwayatu riwaayatul akaabir anil riwayatu al-abai an abna après as as-sabiq wal lahiq définition taarif huwa an yashtarika fi riwaayati an ahadi shuyuuxi raawiyaani taqad tataqaddamu wafaatu ahadihima wa tataaxaru wafaatu thani taaxuran shadidan xatta yakuna baynahuma amadun tawilun maanaam mooy ñaari nit ñaari nit jëlee ci benn sëriñ benn riwaaya te diggante ñaari nit ñooñu seen date de maanaam seen datu seen euh, atu génn àdduna kenn ki jiitu jiitu bu yàgg yàgg keneen ki mujj ba nga xamante ne seen diggante la ci nekk yàgg na lool mën naa am léeg-léeg ba nga jàpp ne affaire bi inqitaa am na ci fekk inqitaa amul fekkante nañ danañ la ci jox exemple wa min yi bokk na ci njëriña loolu mooy an laa yuzanna suquutu shay'in min al isnaadi mooy nga bañ a foog ne dafa am lu dagg ci chaîne de transmission bi maa ngi nuyu mbokk yi nekk ci Facebook bi yëpp ñi mujj ñëw ñoom soxna Mina ak eh, Seydi Mam Góor maa ngi leen di ziar bu baax alors nga jàpp nga bañ a jàpp ne dafa am lu ci chaîne de transmission bi xam nga tey boo jëlee exemple ku mel ni maam Aziz Dabakh radiallahu anhu dafa gudd fan léegi am na koo xamante ni peut-être digganteem ak eh, mam Abdou Aziz seen génn àdduna yi na lool sagam maam Abdou Aziz dafa gudd fan yàgg ci kaw suuf mën nga bañ a foog ne kooku jë sëñ maam jëleewul ci kooku wala fekkante ñu fekk fekkante nañ ñaareel bi loolu première faayida bi mooy nga bañ a jàpp ne am na sukkut bu am ci ci ci isnaad bi ñaareel faayida bi mooy euh, nga jàpp ñu xam ne boobaa ci loolu maanaam ci façon bu mel noonu mën nañ ci am uluwul isnaad isnaad bu kawee mën na ci am exemple Buxaari ci biir saxiixul Buxaari am na lu ñu tuddee sulaasiyaatul Buxaari am na lu ñu tuddee rubaayatul Buxaari ak yu mel noonu maanaam chaîne de transmission Buxaari yi gën a gudd neuf génération la diggante wala neuf personnes digganteem ak yonent bi bi ci gën a gàtt ñetti nit la digganteem ak yonent bi alors que Buxaari on nous dit que ci troisième siècle la dund d'accord léegi bu fekkee digganteem ak yonent bi trois siècle dox na ci et nga am benn chaîne de transmission boo xam ne trois personnes ñoo ci nekk di lekk lu néew la donc forcément y a quelque chose léegi quelque chose bobo lu koy mëna expliquer moy soit ñi nekk ci chaîne boobu kenn ku nekk dafa gudd fan gudd fan goo xamante ni fekkante nak génération yu baree bari ba mën leen a transmettre de sorte que chaîne bi mën na gàtt trop euh, bu fekkoon tey jii man sama diggante ak Mama El Hadj Abdoulaye ñu ngi ci 2023 Mama El Hadj Abdoulaye waaye juru mu ngi génn àdduna 1922 donc suñu digganteeg moom 100 ans dox na ci mais ñu am kenn koo xamante ne ni fekkee na jamono Mame El mu dund disons 120 ans man ma am chance ak mom mu déggé ci maam aladji mu jox ma directement donc man suma ñëwé di nettali da ngay gis ne kon sama digënté ak maam aladji ben nit mo ci dox alors ku xamul mën na wax ne non Cheikh bay ci année génération 2000 le dund 90 2000 donc maam maladie 1900 la fekkewul 2000 kon digënté ak Cheikh bay lu mu gatt gàtt ñetti nit wala ñaari nit war nañ ci mëna dox bu fekkee sama digganteeg Baye Niass rek benn nit moo ci dox mais sama digganteeg Mame Alaaji kon lu mu gàtt gàtt ñaari nit wala ñett mën nañ ci dox kon comment se fait-il nga am isnaad boo xam ne sama digganteeg Mame Alaaji Ablaye kenn moo ci nekk ça peut s'expliquer bu fekkee ne kenn nit kooku dox sama digganteeg Mame Alaaji dafa gudd fan façon gudd fan boo xamante ne ni man am naa chance su fekkante ak moom ba jëlee ci moom wala par exemple tey jii ñi gisoon kenn ku gis sëñ Touba wala ku gis Seydi Hadji Malick di dund ba léegi nga dem jëlee ci moom directement donc sa isnaat sa diggante ak sëriñ bi benn nit moo ciy dox alors que bu fekkee loolu amul forcément tu as besoin de deux à trois personnes léegi bu fekkee am nga chance boobu noonu boobaa olowul isnaad la ñuy wax misaalam أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج

lu mu gàtt gàtt 137 ans moo ci dox ci seen diggante dese yi donc kii dafa gudd fan mooy abul abul Hussein al Xafaaf donc yow boo ñëwee am isnaad bu jaar ci abul Hussein al Xafaaf mu jaar ci abul Abbas Sarraj mu jaar ci Bukhari kon sa diggante ak ñaari nit ñoo ciy dox même bu fekkee ci cinquième siècle nga dund wala ci quatrième fin au quatrième siècle léegi ku xamul par exemple lii quatrième siècle la lii fin au quatrième siècle la 394 de l'Hégire kii 256 milieu wu troisième siècle la léegi yow mi ñëw ci fin wu quatrième siècle nga am isnaad bu jugee ci abul abul xuseyn xafaaf mi mu jaar ci abul abbas sarraaj mi mu jaar ci buxaari kenn mën nañoo ne la comment se fait-il sa digganteeg buxaari un siècle et demi wala deux siècles dox ci ba pare ngay am isnaad boo xam ne ñaari li ñoo ci nekk alors que da nga am chance nit ki gudd fan. comme li ma leen jox exemple léegi ci maam Alaaji Abdoulaye alors mooy saabiq wallah xeq donc façon yu mel noonu tamit mën na am léeg-léeg ci mën na am léeg-léeg ci riwaaya nit ki am ko ci chance te bu ko defee ki xamul mën na jàpp ne riwaaya waa ji dafa dafa dagg wala dafa am ku ñu tuddul ci chaine bi wala dafa am kuñ ci fi fekk loolu yëpp dara amu ci waa ji moom moo am chance dajeeg koo xamante ne nii dem kawe woon na wala fanam guddoon na waa Facebook yi ñaata minutes lañ def ak ñoom tey moom daa mel ni 15 minutes lañ leen waroon na may <coughs> on est à combien avec vous xaaral ma xool pour ñu couper leen on a fait 20 donc mën nañoo yem fii tey ak yéen ba suba ak jàmm incha allahu taala jërë ngeen jëf ñu continuer ak mbokk yi nekk ci daara ji.